kaay yaay sama taaw xilaafa gi moomu ma ko delloo ko waseynu ñoom ñooy waa kër Seydina Muhammad keroog la ko doom jëye sit naan baay yaa abati waxal li nga wax dégg naa ko te fas yéene naa koo def ndeke daa fas yéene war baayam ba yësit xoolal keroog ba baayam génnee duniyaa ñu defar ko denc ko suul ko laay laay la naa yési toogee war na baayam xëyatul xool waa kër yonen na baayam daan def yendootul xool waa kër Seydina Muhammad na baayam daan def addiye ñëw ma fab ko téye war na baayam ci waa kër Seydina Muhammad wasey nu xool mbir ma mbir ma ñaa mu wolu jigéenam ba ne ko kaay dama bëgg ñu dem Makka mbaa ñu dem Madinatu Munawara di fa jaamu yàlla ba keroog ñuy fekki sunu maam Seydina Muhammad ndax xam naa ni dëkk bi sunu teraanga jeex na jigéenam baa ko naan boo nekkee kilifa gu mel ni yësit boo demee wan ko ginnaaw bu ëllëgee dañu naan dangaa gedd kon nag bind ko leetar tàggu ko xoolal waseynoo ngay binde leetar yesit naan ko yesit man waseynu surtout Seydina Muhammad bi maa lay tàggu di la wax ne dama bëgg a dem màkka mbaama dem na munawara di fa jaamu yàlla ba keroog may fekki sama maam seydina muhammad yësit mënoon naa jël beneen kayit waaye kayit ba ko Useynu bindoon moom la wëlbati ca gannaaw di ko tuutala ko xeeb naan ko Useynu boo demee fa bi muraadika boo toogee fa bi muraadika sa dem ak sa toog laa yamale yow daal li wér te wóor mooy sa teraanga jeex na fii yàgg waa kër Seydina Muhammad te bu yàlla dogaloon diggante asamaan ak suuf lépp di wurus ak xaalis ma moom ko man yésit yéenewu ma leen ci benn dërëm yéen waa kër Seydina Muhammad waseenu jàng leetar ba xol ba jeex mu ànd ak jigéenam baag ndaw yaa ñu nga wuti madinatu munawwara ba ñu demee madina ba ñu demee madinatu munawwara ñu ngi fa fekk muhammad ibnu anafiya kooku moo doon kilifa ak madina ca yooya jamono wusey noon koy nettali mbir mu ñaaw mi ko yësit def kooka daal di mu ngay teral waa kër Seydina Muhammad di leen tatagaal di leen berndeel lay lay la laa waaye jamono bu néew la fa def dal di jàll màkkatal mukarrama fekk fa Abdallah ibn Subayru may kilifa kilifak Màkka ba mu ñëwee ci Abdallah ibn Subayru mu ngi ko naan dama lay ñaan bu dee mën nañoo regg benn fan di xiif ñaari fan maak njaboot gi baax na buñ dee rekk ñaari fan di xiif ñetti fan maak waa kër Seydina Muhammad baax na xoolal keroog Abdallahi bun Subayru daal di jooy ne ko xanaa waseenu xamoo ni mboolem teraangay àdduna yàlla ko bind ci sa barki maam Seydina Muhammad waroo xiif waroo mar waroo rafle lay lay la man duma ko fekke keroog la wala ay gone yu ndaw jox leen ñi nga fakaan ñu ngay laajal waa kër Seydina Muhammad seen addiye imaam ñu ngay laaj teraanga ja muy addiye Seydina Muhammad di ko jox Ousseynou di dimbali waa kër Seydina Muhammad waaye xoolal keroog Abdalaaji bun Subeyru la muy baax baax baax baax baax Yusuf ma ko defoon jëf ju ñaaw ja ba mu jóge fa moo woo Ubeydulaay bun Siyaab noonu bi yàlla la ne ko kaay demal ma kaw fa ña fa nekk ñooy waa kër Seydina Muhammad Wuseynu la ñu bëgg Wuseynu la ñu gëm dama bëgg nga dem boo demee del rey ñii di tëj nii di génne ñi jox ko ay ngànnaa yu doy ak ay bagaas yu doy ne ko demal génne leen duniyaa ndax dañoo bëgg wëseynu wëseynoo nga toog màkka dégg na ñu ngay rey waa kaw fa di leen tëj abdallaahi bun subayru naan ko wëseynu toogal fii waa kaw faa ngi koy bind leetar nan ko Ousseynou ñëwal ñu xeexle la nangu xilaafa gi jox la ko yaa ko moom Seydina Muhammad ay sa maam Ousseynou demul tontuwu leen ñu bind ko leetaru ñaareel nu demul tontu leen ñu bind ko leetaru ñetteel Ousseynou demul tontu leen ñu bind ko leetaru ñeenteel Ousseynou demul tontuwu leen ba at may laata jeex bind nañ ko juróom-ñeenti téeméeri leetar ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent ne ko sunu junniy leetara ngi dootuñu la bind yow Ousseynou xanaa doo jàmbaar xanaa njàmbaar gi daw ci sa baay Alioune dawul ci yow xanaa njàmbaar gi daw ci samaam Seydina Muhammad dawul ci yow bu doon ñoom ca seeni jamono ñëw nañ xeex lañu lislaam de lu mel na mu meloon Wuseynu deret ja daal di yëngu ee Wuseynu dereti garmi ga keroog la daldi wanu rakkam ne ko kaay koo koy kan muslim doomi uqaylu uqaylu abi taalib ko jur wuseynu aliyoo ko jur aliyun abi taalib ko jur mu wolu muslim ne ko kaay yaay sama rakk ñëwal demal ma kaw fa na baay urwata doon saadi ba ba may ñëw demal di ma jiital ci seen jàkka ja deema fa taxaw ba keroog may ñëw muslim keroog dafa jaari këram mu nga naan soxnaam sa maa ngi dem kaw fa waaye boo toogee diir bu yàgg gisatuloo ma na nga firiku te tënj xam ne rey nañu ma ci sama ndigalu mag Seydina Useynoo muslima nga dem kaw fa ba mu yeggee di jiite jaam ña heure bu noddee fajar jàkka ja fees bu noddoo tisbaar jàkka ja fees takkusaan timis gee jàkka ja dafay fees waaye benn bis jot muslim daal di nodd fajar gisul kenn kenn jullisiwul genn góor a fa jaar ne ko muslim maa ngi lay ñaan boo jullee ba noppi na nga daw génn dëkk bi ndax waa dëkk bi ay warkat lañ war nañu laa dañoo waxtaan ne dañu lay rey kon na génnal muslima nga naan ñun doon ñu daw yonent bi sunu maam ñu daw mu ne maa ngi lay ñaan nga daw ndax yow yaay sauvé lislaam boo génnee àdduna lislaam dafay sëngéem ñaan naa la nga daw muslim ba mu jullee fajar ba noppi génn di dem jenn jigéen a ko woone ko foo jëm mu nettali ko mbir mi mu ne ko kon boo jàllee dinañu la dab ñëwal toog sama kër boo demee ba jant bi so bu ñu wëree ba sonn gisuñu la nga topp guddi gi daw moo gën boo doxee bëccëg dinañu la dab muslim daal di toog ca kër ga waaye ba mu toogee ba jant bi jóg mu seen waa dëkk ba ak seen ngànnaay ya ak seen fas ya ak seen mbooloo mu bari ma dereti maamam Seydina Muhammad yëngu mu ne ko abal ma jaasi moom kenn mu jox ko jaasi muslim daal di génn ca digg mbedd ma jàkkaarloog gaaña di xeex ak ñoom di xeex ak ñoom di xeex ak ñoom ba rey ca ñoom junni gaañu ne buñ ko fexeelul duñu ko rey ñu ne nu ñuy rey muslim ñu ne dafa doon du ñàmbaar buñ ko fexeelul du génn dunyaa lay lay la la keroog ana nan la ñu def gasal ko kàmb gu rëy jël lu mel ne ay baas lal ca jël lu mel ne sàkkat lal ca dal di cay def suuf loolu la olof yi naan ndëgg sërëx moom lañ ko gasal ca gannaaw di xeex ak moom ba mu yàgg ñu dawwan ko ginnaaw mu topp leen ak fasam waa gaaña foog ne mu foog ne gaaña dañoo ragal ndekete dañu koo pexeel ba mu dawee ba jub kàmb ga gaaña sàyyeeku mu dugg ca biir kàmb ga ñu tiim kook seen bali fit ya di ko jam di ko jam mu leen di tàllal loxo ba ñu koy jam mu leen di tallal loxo ba ñu ngay tuur deret sayduna muhammad mu leen di tallal loxo ba laay laay la laa yaram wa keroog mi ngi mel ni suñeel ak na ndég ya mel ca yaram wa noona la bali fit mel ci yaramu muslim deret yaa ngay gas-gasi mu tàllal leen loxo ne leen tée ngeen ndox ma naan gaañu jël ndox ci pot jox ko muy naan ba mu demee bay naan deret ja tuuru ca biir ndox ma mu delloo leen pot ba xam ne dootul naan loolaa génne muslim duniyaa wuseynu mel ni ku ko yëg ci yaramam keroog la daal di waaj mook waa kër Seydina Muhammad juróom-ñaar fukki bakkan la ñu woon ak juróom-ñaar ñu nga départ ñu nga départ Makka wuti karbin wa bala ba ñuy dem karbala ba ñuy dem Karbala Abdallah ibn Subayru moo njëkk a jooy ne ko doo dem Abdallah ibn Subayru moo njëkk a jooy ne ko doo dem ñoo rey sa baay ñoo ñoo fexeel sa seex ba Asan ba génne ko duniya soo demee dañu lay rey te yow la ñuy xoolee sa maam Seydina Muhammad karaak wasiinu keroog waseynu waseynu waseynu keroog la jigéenam ba sukkayna jigéenam ba sukkayna sukkayna ba mu ñëwee ne waseynu ana foo waseynu ko naan damay dem Karbala jigéenam baa ko naan xanaa dangay xaru li sama maam yonent bi waxoon ci nga nar a jaar mooy sama sët bii di Ousseynou suuf a ngi nii soo xam ne jox naa la ko suuf si dafa weex ba mel ni perkaal bu suuf si soppi koo ba xonq na nga xam ne jamono boobu la ñuy rey sama sët bi di Ousseynou keroog jigéen ba daa dem jëli suuf sa suuf sa daa weexoon ba mel ni perkaal waaye bañ ko génnee suuf sa dafa xonq cur ba mel ni deret mu ne ko teengaa bañ a dem soo demee dañu lay rey keroog xoolal Ousseynou ko naan mën naa am muy beneen Ousseynou bu dul man nii mën naa am muy weneen weer wu dul weer wi fekk nee na ko sama maam yonent bi nee na weeru muharram di weeru tam xarit ci lanu lay rey kon nag weeru tam xarit a ngi jub boo demee dañu lay naan ko su ma demul bu yemal xiyaame suñu la yokk man ci kanamu sama maam Seydina Muhammad dinañu ma yeey lay lay la naa Wuseynu xoolal keroog ba muy dem jigéen ba dafa jooy ne xaaral ma daw seeti Abdullahi bun Subeyru mii kilifa ak Makka su ma waxeek moom su ñëwee ñaan Wuseynu dina toog jigéen ba ba muy dem yamul ca dem rek waaye dafay way di jooyal wasiinu di way di jooyal magam jaa mu ngay may laaj ma lan la ko doon wayal alaa yanaa sawqi fil fuaadi takamaama wa dami jaraa min al wajji indama alaa فؤادك ماما ودم جرى يقي من الوجه عندما يا قلب سما قلب لا تنري dinaa la jooy jooy xol yow Seydina Ousseynou ay ndali إن طال به الأبعاد بصرت بالأم ba mu ñëwee ca Abdalaay bun Subayru may kilifa ak Màkka Abdalaay bun la muy doon doon kilifa dafa ndaw ak ay tànki neenam ba mu ñëwee ca Seydina Useynu mu ngi ko naan aba Abdalaay ana loo nar xanaa xamoo sa baay ni maamu Aliyun xanaa xamoo ni ñoo ñoo reyoon sa seex ba asan wasiy nu boo demee dañu lay rey te yow rek lañu fi dese yow la ñuy xoole sa maam seydina muhammad ehehe eh, eh. wasiy noon ko naan su ma demule bu yomal qiyaame bu nu la yokk man daañu ma yey wasiy nu ba mu deppaare ba xaajale yoon waa jinne yaa njëkk a taxaw ci kanamam ni ko wisiinu doo dem mu ne leen lu tax ñu ne ko say noon ngay fekki mu ne leen dinaa dem jinne ya ne ko kon ñun dañuy ànd ak yow ndax sa maam rek la ñu bu gaañu indee jàmm ñu bokk koog ñoom bu nu indee ay ñu rey leen te doo yëngu yow surtout Seydunaa Muhammad wisiinu naan leen lu dul juróom-ñaar fukki bakkan yi ak juróom-ñaar di ay jigéen ak gone yu ndaw duma leen rax lu weesu waa kër Seydina Muhammad keneen du ci topp jéggal naa leen jinne yaa naan ko wëseynu bëgguñu laa dogeeg naaw wëseynu bëgguñoo weranteeg yow ndax sunu sang nga waaye bu duloon loolu dinañu weranteeg yow ñëw ndax say noon ngay fekki wëseynoo nga naan leen xanaa jàngu leen alquraan ñu ko naan ban aaya ngay wax mu naan ay na maa takkuunu yudrikumul mawta wala kuntu fi buruji musayida jinne ya keroog ñoom ñëpp a ngay jooy di naaw di dem waseynu ba mu xuusee ba mu xuusee ci benn àll fekk ay góor ñu toog mu ne leen barab bi moo di ban ñu ne ko fii moo di saatul furaat mu ne leen déedéet wax leen ma turu ñaareelam ñu ne ko bëgguñu laa dogeeg naw dellul dellul ginnaaw ndax li des ci sa kanam say noon ngay fekki wa say noo nga naan leen bala maa dellu ginnaaw mbaa may dem ci kanam wax leen ma fi ma nekk turu ñaareelam moo di wan ñu naan ko fii mooy àllu karbin wa balaa wa say nu xoolal keroog mu ne gesu na jigéen ñaar gone yu ndawe ni leen bu fekkee ni dangeen a am aajooy dellu mën ngeen a dellu waaye man dëpp dootuma dëpp fii laay yem yaa rabana bàmmeel yaa yaa bàmmeel yaa ngi fii la yàlla ak yonent bi waxoon fii moo di Karbala jigéen ñaa ngi ko naan wasiinu jaayante nañu ak yow ni samaam jaayante woon ak saaba ya jaayante nanoog yow bay aturit waan na gaaña defoon ak samaam seydina muhammad sunu loxo yeeg sunu ruu yi mi ngi ci sa ruu waseenu foo deewee nañuy deewe keroog keroog waseenu ñetteelu fanu tamxarit la tàmbalee xeex ak ñoom doomam ju ndaw ju ñuy woowee limaamu Aliyu la jël teg ko ca kaw fas was kooka fukki at ak ñaar rekk la am ci duniyaa jox ko ne ko xeexal ak gaañi koo koy xeex ak ñoom ba rey ca ñoom téeméer ak ñaar fukk gaañaan ko jam muy waaj a génn duniyaa waaye mu ngi ko naan baay suba naanee benn guuxu ndox dinaa leen génne duniyaa ba nu jeex ndeke booba genn dexa fa nekkoon gu nuy wax saatul furaat jël maa ul furaat jël nañu juróom benn junniy nit baaree ko dex ja naan waa kër sayidina Muhammad bu ñu naan doom jaago naan baay dama mar waaye bu ma naanoon dinaa leen jeexal mu ne ko mu ñëw sa maam dina la nandal ci diigu kawsara wasey noo ba ñu génnee doom ja duniyaa xoolal keroog soxnaam su ndaw saa moo ñëw gàddu liir bu ndaw amul lu may ñetti weer ci duniyaa naan ko wasey xam nañ ñi noon nga àndal ñoom ngay xeexal ñoom nga jàkkaar lool waaye du ñàkk ku am ci ñoom xolu yërmaane mayal ñu sunu doom ju ndaw ji ndox mu naan ndax ay fan a ngi nii man ndayam amatuma ween mi soowuma ko nàmpale kon nag demal ci noon yi ñaan leen du ñàkk ku ci am xolu yërmaande may ko ndox mu naan balaa deewaaleeg mar liir la wuseynu gàddu doom ja liir bu tooy wuseynu gàddu doom ja liir bu tooy waseenu gàddu doom ja liir bu tooy ñëw di ñaan noon ya nan leen samay noon ngeen man ngeen di xeexal rey ngeen ku ma àndaloon ba desul lu may man waaye sama doom ji ndaw ji dama bëgg ngeen sarax ma mayal ma ko ndox mu naan ndax moomin la mu nga taxaw ci liir bay yaakaar naan dina naan ndeke gaañaa ngay sox seen bali ya kenn ku ca nekk nga sànneendoo bali ya bañ ko sànnee mu nga jëm ca xolu doom ja ba ca gannaaw deret ja tuuru ca loxoy baayam Seydina Useynu mu ne leen def ngeen lu ñaaw def ngeen lu ñaaw yàlla dina ma àtteeg yéen ci kanamu maamam Seydina def ngeen lu ñaaw def ngeen lu waaye bu yomal xiyaame yàlla dina ma àtte ak yéen ci kanamu maamam Seyduna Muhammad tabarakallah Muhammad sawaay karbala baa man de sawaay non kay nen li li yi naan xam nga téléphone bu planqué moom fay doo nga ci topp man moom dama planqué waaye maa ngi lay jotal nuyoo sama papa Abdoulaye Mbaye Peex mi ngi may wo sànq ba léegi nii ma wax ni waxal saat bu ne ko waa Peex yëpp kenn nelawul. sama baay sama xarit waaw nee na ma waxal saat bu daal nee na ma waxal saat bu. baayam dafa daan way euh, dafa daan way Serigne Jéeri waa daan na ko way ndax sunu xel ñun ñëpp dem ci baayam. màggal bi nga xam ne sëñ Amar Tafrif Sugu moo ko ko màggalal muy ñaar fukki fan ci weeru koor gi. Oh di màggal bu tombe ak màggalu Cheikh Ibra Fall. ñun suñu waa kër ñëpp ñu ci bari ña nga daan ndax foofu lañ koy màggalee donc c'est important moom xam naa dina ko way euh, juste rek pour wax la Mouhamed ñu baal ma rek way bi bi ma ko njëkkee déglu mu way ko ci benn télévision laa ko seetaanee benn vidéo bu mu toog je me rappelle sax yëre bu mu soloon mais mu nekk histoire boo xamante ne euh, lu lu daw yaram la moom tamit mu mën ko lool mën ko nettali